toog ci rajo def communication communique communiquer né Air Sénégal commencé nañu jay bi jay bi Sénégal yépp daw ça fait 3 jours ñëpp ñëw ci buntu Air Sénégal té or que c'est faux c'est une fausse information ndax man mi di wax ak yeen duguna recevoir nañ ma légui une heure de temps ma tok ak ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal ñu waxtaan ñu xamal mané ne vente ko jotagul commencé gul ndax jotaguñu décret bi nga xamné mo joggé ci gouvernement bi waaye léegi man je me demande moi Sar, moom kan la fi nekkal yow tu me dis que tu es le tu es le secrétaire d'État te tu n'as pas les informations nettes kon yow kan nga waxal est-ce que waxtaan waxtaan nga ak sa ministre Amadou Ba est-ce que déggoo nga ak est-ce que waroo amul ci ay kàddu ba nga indi fi ñoo xam ne ñi Tamba lañ mais imaginez-vous une personne boo xam ne Tamba ngay jugee ñëw am des fausses informations kii jugee Kédougou

moo waral son excellence le président Macky Sall wàññi billet def ko 700 euros Nous ko ci Nous di ko ci remercier parce que dégg nañu bu ñu dégguloon du ko def mais le président monsieur le président doyul Tay diaspora bi ñoo ngi lay ñaan solennellement yow nga xamné yaay kilifa gi ci réew mi yaay le président de la république nga défal ñuko 500 euros mbir mi naam du waxale parce que quelqu'un doit ko waxaale mais ñun diaspora bi ñoo mënul 700 euros ndaxte li tax ma wax ko 80 ou wala 90 pour cent yi fi nekk dañuy leb billet pour ñibbi Qui est nag pour ñibbi te fas yéene koo fay ne le na leb lu mën a fay bi ñu concerté woo diaspora nationale xamal nañ ne prix bi nga xam ne moom lañ bëgg ñu fixé ko mooy 500 euros kon ñoo ngi ñaan le président Macky Sall mu defal ñu prix bi à 500 euros.

Ce qu'on déplore, ce qu'on ce qu'on déplore, ce qu'on déplore moi, mooy Sar, na bàyyi fausse déclaration yi fait joxe te mu wax ñu dëgg lan moo nekk ci mbir mi nañu wax parce que dëgg feeñagul une ñun politique politiques. ñu parti au pouvoir bokkuñu ci opposition politique sommes. Quand le président na wax ak président ñu exécuté devant ñu billet 500 euros c'est tout limo que li ñu gars dem ñibbi comprendre nga wax ji nous nous ñu metti ñun diaspora nous bañ nous Air Sénégal actuellement fait dara lu clair dugg fa waxtaan fa une heure de temps awma dossier dossier